wasalaam ala asrafi almursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw bu ñu sant yàlla sunu borom julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaratu di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ndokkeel bi cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér ak mbooleem njabootug sëriñ bi yépp di nuyu sunu mbokki taalibe yi murid yépp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu jullit yépp it ñu nekk ci senegal ak biti senegal di nuyu bokk yi nga xam ne ñooy teewe jataay bi rawatina bokk yi nga xam ne it ñoo ñuy topp ci jumtukaayu tasukaayu xibaar yi tey jaar ci MKTV wala GMT wala Lampal télévision ak rajo yi yëpp mel ni rajo jant bi ak yi ñuy jokkool ñëpp rek di am mbégte bu baax ci ñëwaat ci seen fukkeelu jataay ak juróom-ñaar ci weeru koor atum 1444 ci gàddaay gi ngir jataay yi nga xam ne daaira Muxaddamatul Xidma da leen koy defal bis bu set ñu indi tomb boo xam ne dafay jàngal nit ki ci lu koy jariñ ci ak dundam ak liy yéwénal ëllëgam lu koy jariñ fañ jëm bu ëllëgee ñuy tànn ay boroomi xam-xam di ko ànd ak ñoom tey jii nag di bis bu màgg ci lislaam di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor tombe ak bis bi nga xam ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam demoon xare xare bu mag boobu di xare badar nga xam ne mooy bi sowee lislaam kon bis la bu mag ñu ngi ci ndokkeel Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ci ndokkeel jullit yépp ñu ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawféex tey jii nag ñi ngi war a waxtaanee tomb boo xam ne ñi ngi koy tuddee al ixlaas wa riya fi asri tawazil al maanaa li ñuy wax li li ñu li ñu bëgg a waxtaane mooy lu aju ci wàllu sellal jëf ak ngistal mooy lan waaye rawatina ni ñuy def ba man cee mucc ci jamono ji nga xam ne jumtuwaayu tasukaayu xibaar yi dafa bari nga xam ne kenn ku nekk yor nga benn ci sa loxo wala nga yor ko ci sa néeg wala nga yor ko fu nekk te yooyu mën a gaaw lool ci luy ñàkk sellal jëf te xam ngeen ne jëf jum mën a doon ci lu baax soo ca jubloo lu dul payik sunu borom rek man nga ca dañ am loola sunu borom mën na laa may lañ nga ca jublu ci saasa waaye fayik suñu borom dafa dafa ëpp solo kon jëf yi ñu jublu fayik sunu boroom loolu mooy jëf yu sell yi kon danañu waxtaanee lu ñuy def ba mën a am jëf yu sell muy jëf yoo xam ne ngistal du ci aju ak mu ñuy def ba mucc ci ak euh, solo si nga xam ne am na ko ci dunduk nit ki ak yi nga xam ne sellal muy sellal jëf mën na koo saafara jàpp naa ne jamono laaj na waxtaan wu mel noonu kon waxtaan wu am solo la woo xam ne nañu ko déglu bu ñu ko dégloo danañ ci jariñu lool kan moo ñu ko war a defal nag mooy sëriñ Chouaïbou Kébé sëriñ Abo Chouaïbou Kébé Euh, moom soxna Waalo Mbakke moom Serigne Saliou kon loolu buñ ko tuddee danañ xam ne doy na mooy kan waaye ci geneen wàll gi nga xam ne tax nañu tànn ko nag mooy di boroom xam-xam gannaaw bi nga xam ne bokk na fu baax fi bokk yi dafa doon boroom xam-xam di gëstukat di bindkat di di di doon kuy faral di def ay waxtaan tamit ci ci fu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew doon ku ñu ràññee ci mën a gëstu ak mën a tesaare njàngaleem sëriñ bi waaye njàngaleem lislaam loolu moo tax ñu tànn ko jox ko tomb bi kon yàlla na ko yàlla defal kàttan ak tawféex ba mu indi ci lu kawe njot kon su ko defee sëriñ Chouaïbou dañu lay jébbal kàddu yi nga jublu ci waxtaan bi bismillah salaam alhamdulilahi wa kafa wa salaamu ala ibaadihi alladina stafa allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad xaatimi nabiyin wa imaami mursalin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 ziar julli yëpp it ci bis bu tedd bi ñu tollool muy yowmu badr di bis buy tegtale lu rëy ci lislaam bu yàlla dogalee jaam yi yëpp toog tal lislaam ba di ko jaamu tey ay jàmbaar a joxe seen bakkan bëgg kàddug yàlla kawe ba tey ñoom ñoo sonn ñun ñuy noppalu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 dund booba bi mu xewee soppi na seen dund indi na lu bees am na ñoo xamee ne jamono yi téléphone la ñu fekk bi mu ñëwee soppi na dund xarkamu doomu aadama yi ci seen jëflante waaye soppi na sax dundiinu ak jëflante ci wàllug euh, joxale bi ci wàllug euh, am-am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 ñëpp di la xool euh, nu ko waykat ba waxee hadaful kulli an yasira ilahan abadiyan taj suu euh, rukabaatu aw safinaatu yaakaar naa sëñ Abdourahmane sax moo ko moo waxoon bay bayit woowu léegi ci jamonoy réseau sociaux yi ñépp dañuy bëgg a doon bu njëkk télé yi ñoo lay wax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 day mujj nit ku ne la lay yitteel mooy like luñ la like nuñ la commentaire nuñ la toppe loolu nag bu duggee ci jaamu yàlla jaamu yàlla dafa am ay mafaahim ak i xiyamam dafa am ay nattukaayam waaye dañuy gis ne nattukaay marché muy li yee gën a jar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 daal koy selfie génne ko ci mbooleem minasaat yi ak mbooleem jumtukaay yi ñuy war a xoole lépp bu ko defee jaamu yàlla gi ñu wiide ko ñu ñu tafriix ko génne maanaam baatin na ndax ixlaas ak niya mooy lubbu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 lu muy def bu ca bu ko yitteelee ba dem ca ba sori dootu nangooti sax ku ko cay déranger te lépp looy defaat dalay lay perturber connexion sa jokkoo ak sa borom yaakaar naa sax ci ñun ñëpp sax ku ci am ñaan gu yitteel gu lay ñaan sax bëggoo sax keneen di la dégg waxuma laa nga koy nga koy wane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 bëgg nit ñi tàgg la wala nga koy def ngir bëgg nit ñi yéem la wala nga amee ca dara bi hadafin taxqiq al intibaa aw al makasib saxsiya imaam Xasaali nee na i'lam an arriyaa mushtaqun min arruya wa sumatu mushtaqa min alsamaai mu ne wa innama alriyaahu asluhu talabu almanzilati fi qulubi nnaasi bi iraaihim xisaal alxayri mu ne ngistal mooy ak jaamu yàlla nga ci wut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 Euh, jaam bee ko moom ba des koor koor moom maa ko moom ndax koor moom ay bàyyi la waaye du ay jëf kon buñ delloo euh, sëriñ tubaa wax na ne na xaqiqatu sumaati fi qawli radi ixbaaru saayin saalihin li garadi yunsabu lid dunya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 lu baax lañ fay def loolu nag moom xam naa ne dana laaj ay ay ay gëstu gëstuy fiq yu xóot a xóot ndax entreprise bi dafay mel ni moom day bëgg lu jaral mbiram xanaa nga teqale ne entreprise bi bokkut ak nit ki nit ki lañuy ñuy tere riyaa entreprise bi nag moom day publicité daa bëgg a siiwal buñ teqalewul loolu nag jëf jooju dana mujj lënt lool léegi ci jamono yi sëñ Tuubaa ñoom a wa sumaatu dafa bokkoon ci kabaayir yi léegi nag dafa mel ne dañuy wut sax ay techniciens yoo xam ne nan lañuy ñuy fexee ba sumaatu ak riyaawu noo koy defee <laughs>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 maa maay def lii maay star bii loolu rek la mu ne ama riyaau fa huwa an yasal fata li qasdi taazimi lwara in thabuta aw jalbi xayrin aw li dafci charri ka talabi almaai wa xawfi durri waxtalafu fi qasdihi dunya ida lam yanwi xayran an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 nee na na leer na yaay ki ngisal bu wér-wér na na am walaw xalaa nee na boo tëju woon sa biir néegi di di di di naafile te yow lii ngay def amee ca say intérêt dong nga ci jublu yàlla taxut kenn gisu la loolu ana koo ko wan kon waaye ndeem innama al amalu binniyaati boobaa jëf jooja ngistal lañ koy tudde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 ñu ne ko luy bokkaale gu ndaw mu ne mooy ngistal yonent bi alxuraan it buñ ci delloo danañ gis laay yu baree bari yuy digal jaam bi ixlaas qaala allahu taala wa ma umiru illa li yacbudullaha muxlisina lahu ddin wa qaala aydan ala lahu ddiinu alxaalis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 ci seen i wala ci seen jëf wala seen i bëgg-bëgg yàlla wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi falyaamal amalan saaliha wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kuy yaakaar yàlla ku yaakaar dajeeg yàlla yom ëllëg nay jëf-jëf ju rafet te bañ a bokkaale boroomam ak dara ne ndax laaya woowu boroom xam-xam yi nee nañ mi ngi wàcc ci ñiy jëf te yàlla tax waaye dañ doon bëgg ñu tàgg leen ca bu demee ci xadis yi danañ gis xadis yu baree bari yuy soññee ci al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 xam naa léegi ngistal googu nag ay mazahiram ni ay ni muy manifesté woo ni muy feeñee ci suñ dund gi euh, bu dee ci réseaux sociaux yi ni muy gën a fesee mooy vidéo aki i texte ak i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 boo ko dugalee mënoo ko jaa mënoo dellooti gannaaw moo tax ñi faatu dañ naan waaw man def naa erreur ndekki dii la lii ab ab ab lu ñu la may la diggante si heure bu ne Sëñ Tuubaa nee na benn ër bu ne mënoon nga cee jënd një jawharatun nafisatun lam yeen jëli benn nokki bu jaam bi nokki bu ne aw ab jëwhëra la jëwhëra nu ñu koy waxeeti eh, gànjar gu gu gën a ga gën a cher bu doon jamaa ba gën a cher ci àdduna sa benn nokki lool eh, ëpp na ko sa benn nokki boobu nag la gën jafe la gën la amut ci àdduna àdduna sax eh, sa nokki ëpp na ko liñ la ciy fayee xajul àdduna mu ne nag boo dof dofloo ba nokki boobu badala au lieu ñu la ciy fay lu baax waaye ñu la ciy fayu ñu la ci rek doy na sax pertanga waaye fayu ñu la ci di la ci fayee lu bon nag loolu moom mooy mooy xasaaratun al bi waliyaasu billaahi taala sëñ Tuubaa nee na amal bida wa tadyiici al bi xayri ma yuf bi xayri ma yugni fadaauhu yadur sa heure say waxtu nga sànk ko ci lu la dul jariñ lu la dul yokk nit yàlla nga nee na sa waxtu na doon lu lay jariñ ci sa àdduna wala luy dugg sa poos luy dugg sa yool wala luy dugg sa poos àdduna wala alaaxira rek looy lay jariñ nee na nag sànk sa sa waxtu ci lu la dul jariñ fa daa uhu yudur luy lor jaam bi la lool ëllëg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 def say awraat euh, def li nga war a def ci lu baax wala nga dem ko wuti alal loolu lépp da koy temps yooyu perte la kenn waxul nag ne nit wuta noppalu yon san salam nee na sa sa sa sa bakkan dafa am ci yow àq sa jaboot am ci yow àq sa diine am ci yow àq joxal ku ne àqam waxtu woo war a noppaloo nga noppalu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 boo ko fésalee dootu bari te njariñ waxuma la sax mbiri yàlla waaye mbiri àdduna sax beneen bi it lu jar a bàyyi xel ci kuy jëfandikoo réseaux sociaux yi mooy nay tawaasun di màndaxe diggante li muy wane ak li ne li li muy représenté moom ci jëm boppam ndax lii dëggu na ndax lii ci la nekk saa ndax lii mooy identité dëgg-dëgg bu dee luy wane nii rek la nga bàyyi ci xel ne loolu mën naa am lu yàq la dana dugg ci lu lay tafaaxur alhikmu takaathur atazutumul maqabir lu lay ëpplante rek ni koy waxee ci wolof euh, takaasur muy ëpplante ak euh, loolu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 la suwaqiya fi asri tawasi al ijtimaiya suñu jëf yi yi nga xam ne ñu ngi koy jëf nit ñu ci mën a jubloo ngistal ak ngistal ni mu mënee yàq jëf te tasukaayu xibaar yi ak jumtuwaay yi tasukaayu xibaar yi ni ñu mënee bijji jëme ñu ci ngistal te duñ ko bàyyi xel nga indi ci lu am solo muy lan mooy ngistal ak eh, ni mu ci jullit bi ba yonente bi salaa sallam bu ndaw maanaam sirkul ashar bokkaale bu ndaw nga indi tamit yu am solo ci nit ki ni muy lan mooy xajjale ngisal ak lu ngisal kon ndeke nit ki mën nay jëf-jëf joo xam ne àddina bépp mën nañ ci teg seen bët di ko gis fu nekk ci àddina bi waaye mu bañ cee am bàkkaar ndax jubluwaay bi waaye man ngaa wéet ci sa biir néeg tamit di jaamu yàlla kenn gisu la nga jublu ci laneen lu dul ngërëmul yàlla loola jëf jooja yàqu ngistal dugg ci kon li tax euh, tomb bi jóg lu am solo la mooy gis nañ ne jamono ji euh, tasukaayu xibaar yi wala sinab yi wala yu demee noonu nit ñi dox nañ jëm ci bu wóor a wóor ba nga xam ne léeg-léeg da gis kuy def farata di wër kaaba ga wala ngay dox sa ak marwa di di génne sa bopp mën na yàq sa jëf ba ci sax ci biir yoon wi nii sax nga gis ñu bëri léegi dañuy dem di jëfi lu baax di yóbbu addiye wala ñuy séddale eh, ay ay ay ay alal di ko wane loola bu fekkee dañ caa jublu ngir nit ñi gis ko loola eh, mën naa yàq seen jëf kon tom bu am solo la boo xam ne bu mat a moytu la surtout labiré yi nga mujjee sax nga xam ne sëriñ bi labiré na ko ci nit ki ni muy yàqee temps am ci téléphone am ak yu demee noonu te xamul ne eh, lu ci nekk mën na cee am leneen njariñ lu loolu ngir bàyyi xel ñi nga xam ne dañ fay jógee ni ñu yittewoo ngir dellusiwaat indi nga it lu yaatu ci lan moo ko mën a saafara ci mujj gi mooy nga doon nit koo xam ne da def rek booy def looy def rek nga def ko te yàlla tax te bañ a bañ cee séentu siiwaay bañ cee séentu ay tagg bañ cee séentu lu nekk ndax li la ñuy bijj jëmale ci loolu rek mooy loolu mooy di ko def ànd ak koo xam ne moo lay senap wala moo lay waxal lu baax ngir nit ñi gën la cee naw gën la ki loolu soo ko ci defee mën na yàq sa jëf loolu kon euh, lu am solo la indi nga ko surtout la bi rek nga mujjee ci euh, réseaux yi ci wàllu xarala yu bees yi ni ma yàq dundug nit ki wala muy yàq taam wala muy indi sax indi indi ko sax wér-gu-yaram wala mu sax mu koy faat di gàttal ak dundam te yooyu yëpp bëgg feeñ wala bëgg gis leen ma dana ko waral kon tom bu am solo la wax yàlla am nañ ci lu kame njort ci ni ko indee ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom gën a euh, dëgëral sa taxawaay gën a leeral sa dënn di sant mbokk yi ñu doon topp tamit ci MKTV ak euh, Lamp Fall télévision wala ñi ñu lëkkalool ñëpp te ñuy jël ab signal ci euh, surtout Jumaay Tuubaa di leen jox dig daje wala di leen dig daje suba ak jàmm ñu war a waxtaane benn tomb boo xam ne ñi ngi ko tuddee alsawaabit wal mutaxayiraat fi l muridiya maanaam yi soppiku ak yi dul soppiku ci yoonu murid sëñ Cheikh naa Mbacke Abdoul Wadoud moo koy waxtaan insha allah suba jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh